xamee ne ñii di waa Guinée woote nañu déet ci référendum bi amoon ci 1958 relation yi dox diggante ñaari réew yi donte sax yàquwul waaye bëri na ay jafe-jafe ci nguuru sengoor ak Sékou ñaari réew yi xaatimoon nañu ay accord yi jëm ci wàllum njënd ak njaay waaye waaye moo ne bu wuute bi ak itam ñàkk doole bi nga xam ne franc bu Guinée bi am na ko tax na ba ñaari réew yi seen lëkkaloo ci wàllum koom-koom soriwul ci jamono jooje nguuru Guinée ñu ngi mere ni doomu Guinée yi nga xam ne dañu doon xeex nguuru Sékou Touré ba tax kii di président Guinée ba tax kii di président Guinée bi lànk ne du participer ci festival mondial des arts bi nga xam ne Léopold Sédar Senghor mu ngi ko doon amal ci Sénégal xëccoo bi diggante ñaari njiitu réew yi nag mu ngi yegg ca cappaandaw ga ci atum 1966 bi nga xamee ne nguuru Sénégal dafa jël dogal ne day dakkal bépp lëkkaloo digganteem ak ñii di waa Guinée loole nag li ko waraloon mooy ay tuuma yi nga xam ne ñii di waa waa amaloon nañ ko ci ndoddol Sénégal jàpp ne Sénégal daf doon lëkkaloog nguuru France ngir amal ab camp d'entraînement ci biir réewu ginne ginnaaw Senghor ak Sékou Touré xiiroo ak ŋaayo bi wéy na ba diggante Macky Sall ak Alpha Condé ñaari nguur yi yàgg nañu xëccoo bokk na ci li indi woon ay jafe-jafe seen diggante muy crise ébola bi amoon ci 2014 ba Sénégal tëj ay frontière am loole nag kii di njiital réewu Guinée bi daf ko jàppe woon ab trahison ci jamonoy putschistes yi nga xam ne kii di Mamadi Doumbouya moo leen jiite nag xiroo bi ak ngaayo bi dafa woyoon ak digganteem ak nguuru Macky Sall nguru Macky Sall bi nga xam ne dafa jàppale woon sanction yi nga xam ne kuréel bi di CEDEAO tegoon na ko ci ndoddal junte bi ginnaaw coup d'état bi nga xam ne amaloon nañ ko sanction yooyu nag ñii di waa parti Pastef bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite woon ci biir Sénégal dañ ko ñaawlu woon bu baax ba tax na tukki bi nga xam ne kii di président Diomaye Faye amal na ko ca Syli national nag ñu njort gën a yombal lëkkaloo bi ci diggante ñaari réew yi te ñu ciy xaarandi ndax nag lépp def leen a boole ci taarix